fële ca stade Amadou Barry daan ko avec la manière Tapha Tine réew ngi lay nuyu biti réew fépp fu doomu réew mi nekk rek ñoo ngi lay nuyu bu baax baax di la jox sa wàccuwaay maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu képp ku fi teew ci stade bi tey di leen jéeglu di leen wax mos a coono di sant yàlla julli ci yonent bi. di gërëm ma ñaari waajur comme ni ma koy waxee di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu képp kuy fan si Tapha ak képp ku teew ci stade bi ak ku fi teewul maa ngi nuyu ñëpp di nuyu képp kuy Bawol Bawol ak képp ku dib njàmbur njàmbur wala Saalum Saalum wala Kajoor Kajoor maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp comme ni ma koy waxee maa ngi gërëm sama mbokk xalpulaar yi soose maninke manjaago ak joolaa yi ak suñu mbokki chrétiens yi aussi maa ngi leen di nuyu ñoom ñépp di nuyu Sénégal yëpp di ñaan jàmm si dëkk bi yal na dëkk bi estable mu bañ a am benn histoire. waaw bu loolu weesoo nag ku ne xam na ci bés la ñu jëm ñun ñëpp te yaakaar naa ku ne xam na ne bés bi ñu jëm muy suma diggante ak Boy Niang mu nekk lamb ju mag joo xam ne bu dàqul ci saison bi. mën naa ne deuxième lay jël yàlla nay lam ji fi dàq te yàlla may ñu ci ndam. amiin amiin du loolu weesoo nag maa ngi ñaawlu aussi li nga xam ne moo xew passé stade muy diggante Papa Sow ak Siteu di ko ñaawlu man am na vidéo yooyu du ko seetaan parce que man daraay violence duma ci dox. Tapha bu ko xam mën naa ne def naa 16 17 ans de carrière kenn mësul dégg ñu ne kaa leen àtte Tapha fii. samay supporters man mën naa ne noonu lañ mel ak ñi bëgg yàlla ak ñi bëgg ak ñi bëgg tafaatinte yàlla tax noonu lañ mel man loolaa gis ci ñoom comprendre ngeen kon nag ñu ngi ñaawlu li xew te xam nga ñi koy def bu fekkee ay nit ñu ànd lañ ak seen sago nañu ko bàyyi quoi parce que du image bu rafet déjà ku wax nawetaan da ngay wax làmb te actuellement nawetaan bi tëj nañu ko. Mhm. te lii xew nii buy ñaar di ñett ci ñun la jëm si. te bu jëmee ci ñu rek du baax parce que lamb ji li ci yaakaar dafa bari ñun mën nañu xëj na ñooy grand yi. mais tam il faut ñuy sóoraale suñu xale yi nekk suñu ginnaaw. Mm-hmm. waaw bu loolu weesoo nag maa ngi sant sama mbokki lutteurs yi nga xam ne ñoom laa bokkal tund bool yëpp. tey ku ne gis na booy yi tey ñoom ñëpp teew nañ fii comme na ma koy waxee ku ma ci lim rek. yaa problème. waaye ñoom ñëpp. attends may ma rek ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci ñoom. Moussa Dioum laa ciy cité teg noyoo ci loxo mu tegal ma ko ci booy yëpp yaakaar naa ñun ñëpp mooy suñu grand fii kon foofu mot na bu loolu weesoo nag maay sant waa Médina aussi waa Fass Gueule Tapée Colobane Médina Rebeuss Niacoker ak pompier nga xam ne ñoo seq zone bii ñu nekk ak Dakar bi aussi di sant aussi le maire Bamba Fall bi nekk fii di ko nuyoo à passage waaw bu loolu weesoo aussi di sant aussi sama président écrit ñu koy wax falu fay nga xam ne sànq ni mooy jël kaddu léegi ak Pape Thiam Pape Thiam suma xarit ñoom ñëpp nekk ci politicien bi ak Bada Bada ñi ñoom maire Djib Thiaw xam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Amet Dieye xam nga ñoo ñëpp sumay nit lañ ay ñoom Daouda Tine xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen yaakaar naa précis Fallou Faye message bi jàllale na ko maître Pape Sène aussi maa ngi koy waroon na ñëw fii teew bu ndondol mais yaakaar naa yónnee na délégation quoi. maa ngi di nuyu aussi Moustapha Cissé Lo sama turando El Pistoro koy nuyu aussi ku may jàppale wax dëgg yàlla. ñoom si ñëpp maa ngi leen di nuyu aussi xam nga ak ñoom madame Mbacke bi ñu bokkal liggéey bi. bu loolu weesoo aussi di nuyu suma Assane Papa Thioune ak Elas nga xam ne tout le temps ñu ngi ci ginnaaw Tapha Tine di liggéey ak moom. waaw di santaat yàlla bu baax di gërëm waajur yi xam nga di nuyu monde lam yëpp. Ah di leen wax bismillaahi ah rahmaani rahiim. acca kon ñu dem ci question yi. waaw léegi Tapha tey dañu gis tey dañu gis nga am combat nga woo tund gépp woo say mbokk woo ba woo responsable politique yi. ñu gis ni da woote. ba woo responsable politique yi. bés bi moo nu toll. wala adversaire bi ngay dajeel moo toll noonu. xam nga bés. bés dañ koy fonk te man dama fonk bés. te bés yu mel ni boo ciy dem dangay ngay ànd ak say mbokk yépp xere la quoi. doo bàyyi benn nganaay. te man lam ji mel na ni kuy doog a bëre grand combat ci stade Diom bii laa bëre woon sama premier grand combat su may deuxième combat yëpp fii laa ko defee te lam ji mel na ni kuy doog a dóor te booy yi may liggéeyandoo ensemble xam nañ ci dara te balaa ngeen cee xam dara ñu egg ci bés bi incha allahu rabi. aca balla aca waa Tapha léegi ñu gis ni bëri na ay combat yoo xamante ni bëri nga ko combat jàng bëri fi ay combat yoo xamante ni sénégalais yi yëpp nangu nañ ni tu es champion waaye tey ndax xale bi ngay dajeel tey ndax xam nga ko xale bi ngay dajeel amateur yëpp nangu nañ ni xale bi ngay dajeel xeexkat la bërikat la est-ce que yaa ngi suuraale loolu ci non nothing talking about aw ma dara dara dara lu ma koy wax I am working night day maa ngi liggéey anytime aw ma lu may tiit big man yi nekk ci lam ji man tafaatin maa leen daan kon aw ma benn benn combat bu may jaaxal aw ma dara lu ma koy wax du noonu adversaire la nag liggéey na boo yàlla may ko muy dajeeg tafaatin boo bés balaay xaar incha allahu rabi aw ma dara lu ma koy wax. est-ce yaa ngi xalaat est yaa ngi xalaat xeex bi ci Boy Niang ndax tafaatin xale bi ngay dajeel yow leer na la xale bu ndaw la bokku nag ñi nga daan dajeel ci ak li wax. dañ ne Boy Niang numéro 2 ngi doog am combat ci ay combat am waaye Tapha tamit mi ngi doog a am combat est-ce que loolu yaa ngi koy yaa ngi xel bu baax a baax. waaw même question bee ñëw rek. Uh-huh. loolu laa la wax sànq. ma ne la aw ma dara. Hmm. aw ma dara lu ma koy wax quoi. combat la moom xam na ne am naa combat def ko signé ma signé ko man tam xam naa ne am naa combat maa ngi pare mu ngi pare ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey li ñu liggéey nag bu bes baax la ñu koy wone incha allahu rabi amul leneen. loolu la quoi seen combat dina am xeex yéen ñaar. non bëre door la ñu wax. tey bëre simple bi yaa tout boo demee ci àll bi wala nga dem Grand Yoff yomb na quoi comprendre nga may nañu ñuy def bëre simple yëpp su may gaañ lañ xam nga mais lii bëre door la wax quoi. bëre door kon xeex. xeex nga fas yéene indi sa adversaire exemple doo bàyyi dara da ngay bëre di xeex quoi loolu amul leneen. da ngay di xeex mën nga ñu wax naka nga préparé combat bi est-ce que combat bi ni nga ko préparé ak ni nga doon préparé yeneen combat yi benn la. mooy li ma la wax sànq dama mel ni kuy doog a bëre. lan moo waral loolu. ngir fonk gu ma fonk combat bi bousee wu ma fenn lépp fii laa ko liggéey lépp lu ma am Sénégal ci place yi laa ko amee ci salle yi nekk senegal laa ko amee quoi amee ko feneen. sa adversaire mu mel ni combat bi fonk lool ndax jóge na fi dem ba bitim réew. waaw préparer combat ci ni mu waree yow nga ne fii nga toog di préparer combat bi. waaw Sénégal Sénégal yaa tout ñam naa fee ñam naa fii ni ñuy pare combat kon xam naa nu ñuy pare combat nu ñuy pare combat moom kenn dootu ko wax tafaatin comprendre nga euh, yàggatul daal. dafa combat bi dafa mel da nga ko mooy li ma la wax déggoo li ma xanaa yow déggoo ma ba léegi de. ak ma laa dégg. mel ni kuy doog première combat ma ko fonke woon bii moo raw. exactly. léegi yaa ngi jà yaa ngi jàkkaarloog réew yaa ngi jàkkaarloog Boy Niang numéro 2 man leer na ma ni mi ngi seetaan lan nga koy wax. dama la lakk anglais léegi yow xam naa déggoo ma ba léegi ko ak ma laa dégg ndax exactly aw ma. ak ma laa dégg ndax des the language the most speak in the world. aw ma aw ma dara ma aw ma dara lu ma koy wax. aw ma dara lu ma koy wax. adversaire la bu ma respecté nag. parce que xam naa ne champion la. moom ku ma respecté la mais le jour si laay xaar quoi incha allah ma ñëw def différence rek dem su ma yoon. non dañu bëggoon nga wax Boy Niang koy indi ne ko ma aw ma aw ma dara lu ma koy expliqué. yee. ah kon yóbbante ko dara. aw ma dara lu ma koy yóbbante. xale bi bul fàtte ne day jàkkaarloo yow de te am na lu ma la war a waaw na arbitre bi sànni bantu 30 mètres rek jóge foofu. loolu rek laa lu may wax quoi. li ma waxoon du ma ci dellu ginnaaw bu ma ko nee puusal dafa war a puus. that clear ah yeah bu ma ko ne puusal dafa war a puus loolu moo jaadu. est-ce que xam nga ni xale bi ñi mu bëri ñëpp da leen yóbbu latéral defal leen affaire. waaw mais loolu baax loolu moo baax loolu affaire am la quoi man suma affaire mooy ñëw taxaw liggéey li ma war a won ko li ma liggéey. is nothing jéem na quoi. léegi lan ngay wax réew mi ak ñi seetaan. waaw di sant yàlla rek di ñaan ci réew mi ak dal quoi. di waxaat aussi li ñuy xew gis ci stade yi nañ ko moytu. di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam. looloo fi nekk bu loolu weesoo maa ngi sant képp ku fi teewaan ah. képp ku fi teew maa ngi lay sant di la gërëm aussi di santaat aussi Fallou fay maître Pape Thiam bi taxaw ñoom Bamba Fall ak ñëpp ñoom Messi xam nga ñoom Mor Ngom xam nga ñoom si Diop ah. ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ko léegi Modou Anta benn question bu mu la bëgg a posé. dañu gis na yàgg ngaa dugg Pikine bëre fa ak ñoom Malaw Seras bëre fa ki nga xam mooy Abdou Diouf bëre fa ak Talla Gaynde bëre fa ak mais defet boobu aussi tamit say supporters bokk na ci loo xam ne bàyyi nañ ko seen xel nga fay duggaat jëlaat beneen xale muy Boy Niang numéro 2 est-ce xam nga day wa combat bi te aussi tamit pare nga pour rectifier wu tàggoog say supporters ndax defet Ama Baldé mooy li ma la wax sànq rek Modou combat bi li mu ngeen koo xam xam nga du ma gis yu liggéey jàpp suma njàmm parce que man xam naa ne am naa combat te respecté naa ko te combat laa am te maa ngi liggéey incha allahu rabbi te bu ñu demee ca bés ba incha allahu rabbi yàlla dina ma may ndam man loolu laa ñaan yàlla quoi. Eh, Abou Ndour Abou Ndour suñu doyen mi ngi nii moom moom nee na. ah. mu nga wàññi. nee na da nga loolu ngeen gis ko quoi mais man gisuma loolu man moom damay liggéey topp sumay ay entraînement rek quoi. léegi ñu bàyyi la nga wax ak sénégalais wax ak ak lamb. waaw waaw waaw di sant yàlla comme ñu koy waxee daal xam nga di sant képp fi teew di sant monde lamb ñëpp waaw Sakandé alias Tax Kirip loolu dafa leer. barki yonent bi. Eh, lu indi sàkkande bi. waaw loolu sama géem la sama yëfi bopp la buñ ca yéegee dinaa leen ko expliquer incha allah. waxal ak réew wax ak say supporters. waaw. a Wassare mu ne booy ñëw ku ko xam xam ne day jëli mbër. danaa coppe sa tànk laxasu sa ndigg bari na yu mu ko def daan leen est yaa ngi xaar loolu sa diggante moom bu ne coppe sa tànk laxasu sa ndigg la cay xew. waaw man li ma liggéey laa gëm quoi du noonu li ma liggéey laa gem moom la mu liggéey moom laa engagé quoi mais man li may liggéey laa gëm quoi. bu ñëwee xeex ak yow xeex samp jaaga xeex ak yow. bëre dóor la ñu wax. Tapha Tine kenn du ko wax ci xeex wala boog leneen ko leneen ngay wax. sa diggante ak Ama Baldé noonu demee est-ce que booy ñàkk ñëw jël sa tànk bëre waaw mais mooy li ma leen wax yéen du ngeen ma dégg tout le temps combat laa am damay préparer komba xam naa nu ñuy paree komba du dégg. la weesu nag weesu na ko man li suma kanam laay xool nu mu ko lijjantee nu mu gën a gaawee. ñu baal la nga bés ba jot ma def différence dem suma yoon loolu la ko amul leneen. ñu baal la nga waaw di sant waa Bawol yëpp ku ne xam na ne tey ñoom ñëpp teew nañu fii maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp di rafetlu seen teewaay ñoom ñëpp Tapha nag équipe lañ. équipe ñooy liggéey ak ñoom. tey bu ma fi newoon di lim ay tour day compliqué. comprendre nga li firndeel na ko tey ñoom Pape Thiam xam nga ñuy ñëw teew ñoom Fallou fay suma président écrit mun naa ne Bawol gépp a fi teew kon loolu sant yàlla la ko te bu bees ba di ngeen gis lu garaaw incha allah mobilisation mobilisation waaw foofu moo baax. Pikine moo moo baax. moom laa leen wax. moom laa leen wax ma ne leen man sama fan si club bi gën a mag mu ngi buntu Pikine du ñuy jël car du ñu jël sept place dañuy dox dem ko ah. buntu Pikine mooy fan Bakulane. waaw waaw waaw. <laughs> léegi léegi ñu la nga woote. waaw waaw bu loolu weesoo nag di sant sama mbokki promoteurs yi ñoom jéey seen xam nga yi ne ci làmb ji ñoom Daouda xam nga di sant aussi Daouda automobile sama copain maa ngi koy gërëm wax dëgg yàlla. ak ñoom Tafatine bu Kër Ndiayloo ñëpp ñu ngi tey ci stade bi mais dañoo laqatu ñoom cuun papa cuun hélas ñoom ñëpp. xam nga waa ñoom Bamba ñoom di sant aussi suma fan si club bi Ilimane jël nuyoo bi teg ko ci loxo mu tegal ma ko ci waa groupe yëpp kon loolu leer na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal en tout cas. jaajëf.